pour man bon buñ waruñ ko légaliser parce que bu buñ ko légaliser loolu problème lay gën a indi si dëkk bi kon mooy maanaam nit ñi dañuy def lu leen neex parce que mënuma comprendre un pays comme le Sénégal ci vois ñu ne dañuy légalisé yamba non man loolu gisuma ko waaw lu nice waaw ñu bàyyi gars yi daal comme comme ni ñuy def di laaxatu di tox sax moo gën ñu koy légaliser parce que bu ñu ko légaliser problème rek lay indi waaye fu nekk lay taxaw di tox xam nga Sénégal dafa ëppal même légaliser ñu ko nii sax gars yi ñu ngi taxaw si mbedd bi di def lu leen neex bon su ñu ko légaliser pour man loolu beneen problème la quoi. comme comme kooku génn si télé bi wax ko Gassama man pour man quoi waru woon taxaw publiquement di wax loolu en étant un quoi. sincèrement parler. tey boo amoon conseil boo xam ne en tant que jeune euh, nga xam ni bari na ñu bari bon am ñi ko jëfandikoo amul âge quoi mais rawatina ndaw ñi nga xam ni dañu nekk ci yéen digg doole war a réaliser seen avenir. en tant que jeune tey boo amoon message boo leen lancé lan nga leen di wax lu jëm ci wàllu drogue na yamba bi ñuy tux. ah en étant jeune quoi comme man jeune la man je fume mais je fume du tabac tu vois. mais comme jeunes yi am na ñoo xam ne dañuy tox am na ñoo xam ne duñ tox mais man lu ma leen mën a wax comme gars yi am na ñoo xam ne moom bàyyi ko ak dee lañ yemale quoi mais comme munuñ ko bàyyi ñu wàññi ko parce que ku si nekk yaa xam sa dund quoi li ngay dund ba tax nga koy tox xam nga rek mënu ma taxaw ne dañ ko war a bàyyi par force tu vois du ma juger kenn quoi mais xam naa ne daal dorog baaxul quoi mais xam naa ne dorog baaxul te dalay sànq day jeexal sa xaalis jeunes yi nañ dem liggéey mu nga nañ dem liggéey moo gën ñu topp yamba bi di tox rek loolu jëmaluloo kër quoi pour man man fii laa nekk man maay jaay robe yi nii tu vois xam nga rek ak genre quoi sincèrement man moom damay tox mais je fume que du tabac quoi c'est bon genre yamba bi je pense que c'est pas approprié parce que genre bu ñuy tox yamba bi affaire yooyu noonu day influencer yeneen xale yi du coup euh, bi moo gën a kii nii parce que yamba bi mën na am ay effets néfastes genre mën nañ si jëlee ay problèmes yu bëri Euh, mën na am dépression affaire yooyu noonu daal mën na indi ay kii yu su ma seyoon daal ñu interdit ko si dëkk kon daal gis ngeen ni maanaam di ko jéem a légaliser loolu moom du question. non non c'est pas bon parce que mën na indi yeneen problème comme lan. mën na indi dépression dëkk bi mën na gën a jaxasoo. Euh, jeunes yëpp dinañ si dem aboutir wala affaire yooyu noonu daal je pense que c'est pas loolu moom ëpp naa yëkkati moom. Seydi Seydi Gassama xam kooku moom damay dégg tur bi rek mais kooku moom man mënuma comprendre ay mbiram quoi parce que man ñi muy défendre ak li ma dégg gars yi ne moom loolu lay wax à chaque fois man dafa may jaaxal quoi parce que ay yàmbaa moom ay loolu pour ñu légaliser ko jarul sax muy jëm kaw parce que mooy loolu quoi parce Yamba nekk na loo xam ne dèjà ñu ngi naan boo ko boo ko jëlee doo nekk dèjà ñu bëri ñu ngi naan diw dafa tuxu yamba faat nit genre xam nga kon buñ ko légaliser après ñun ñun fan lañ jëm parce nekkul na loo xam ne baaxul ci jeunesse bi yamba dafa nekk loo xam ne loo lépp loo xam ne boo ko jëlee doo nekk rek baaxul ko quoi dèjà kon buñ ko légaliser surtout ñun jeunes yi ñoo ci gën a am problème quoi parce que tamit yamba daal. loolu daal jëru sax jëru sax ñu koy yëgadi quoi pour man jëru sax ñu koy yëgadi Seydou gasa moom moom xaw ma gasa ma xaw ma kooku moom dama yaakaar ne moom day jël sax moom bi muy wax loolu moom moom est que tiitul tamit est-ce que jëlul comme ni ko gars yi di waxee parce que jëf jooju yowul nan nga ko mën a xalaatee ba koy jéem xam nga wax nit yi di dégg muy jëm kaw ba ku nekk di ci jéem a saani sax kàddu nii xam nga non am na loo xam ne moom man jaru sax jaru sax waaw loolu quoi. Euh, ci loolu anyway bu fekkee ni par exemple li ñi nga xam ni tamit euh, mooy yàmbaa ji chaque fois nga dégg jàpp nañ des tonnes des ton des tonnes et toujours mi ngi gën di dugg ci dëkk bi yow lan xalaat ni moo koy faj ci kilifa yi la walla ci ñan la. Ah, <laughs> ah, loolu moom loolu sa xalaat rek lan lan la war a mën a def maanaam ba yàmbaa ji dutul dugg ci biir dëkk bi walla bu fi dee dugg tamit quantité bi dutul demee noonu. ah mais yàmbaa moom xam nga rek fi muy jógee xam booy booy ko ak ñi ñu ci jàpp ni dugaluñ ko fi. waaw parce que yamba moom fi muy jugee moom mooy loolu gars yi gars yi ci kaw lay jugee quoi nañ ko wax te dee ci gaw lañ jugee gars yi ñoo koy dugal xam li ma la wax mais boo yi ngay tux ni boo gisee ñuy jàpp ñëpp ay benn joint lañ lay fekk ngay tux ñu jàpp la kërëng kërëng xam nga waaw yamba bi daal fi muy jugee xam nga mooy loolu quoi gars yi yéen a ma gën a xam ci kaw lay jugee après mooy loolu boo amoon benn message boo xam da koy lancé jëme ko ci population bi rawatina ndaw ñi lan lay doon si wàllu drogue beeg yàmba. non man moom wax fa dëgg yàlla moom man man moom ku may conseillé wala xarit bu ma am moom ah waxuma la tux yàmba sax mais cigarette sax doo ko tux waa xam nga parce que tamit nekk na loo xam ne ay yàmba yi nii day dalay yaaxu quoi parce que boo ci xasee dugg rek déjà yow beneen nit ngay doon boo nekkoon nit bi après beneen nit ngay doon parce que li muy def ci yow. dalay yàqu quoi dalay dalay def beneen nit xam nga dootoo dootoo nekk comment dirais-je dootoo nekk nit ku normal quoi xam nga dalay yàq di la dugal ci leneen parce que yamba daal bàyyi man la sama ko gastul ko gasul quoi affaire de yamba moom cigarette sax buñ ko mënoon a dindi moom mooy loolu waxuma la ak ay yamba yi nii yooyu moom man la sama waay ki ko ki ko wax noonu sax xam nga dañ ko moom ci boppam la ñu waroon a njëkk a pakete parce que loolu noonu jeunesse si la bëgg a yàq man pour man jeunesse si la bëgg a yàq waaw man moom moom rafetlu ma ko quoi rafetlu ma ko su ma sañoon daal moom ah non ñu xool leneen quoi mais loolu moom waruloon sax jëm kaw parce que du yoon quoi. yamba moom franchement nit ñi di koy utile day day day influencer jeunes yi da leen di euh, pousser si yoon boo xamante ne baaxul parce que yooyu jeune jeune d'aujourd'hui si suñu société d'aujourd'hui nit ñi dañuy jël kii bi. ni nga waxee yamba bi di ko di ko di ko fooyee di ko waa di ko di ko di ko clier daal def du sérieux alors que loolu baaxul parents yu bëri dañ si sonn après dañ si sonn te loolu problème pour génnee leen si nag ah na dina dina métti trop bon li nga xam ni mooy légalisation bi moom loolu moom tu na pas pour quoi. légalisation non non je ne suis pas pour je franchement loolu moom. yow mos nga gis kuy tux yàmba. non non mosuma ko gis mais dama koy j'entends parler à la télé damay dégg ah, kii impact yi damay dégg impact yi tout j'entends parler. mais mos nga gis ni kii bi produit bi. non non non mosuma ko gis waaw. léegi en tant que jeune fii yow bu fekkee dafa am euh, looy looy kii looy euh, digga sa morom mi surtout les les les les les waa plus jeunes muy adolescentes yi wala adolescents yi lan nga leen di wax. dama di wax daal ñu xam seen bopp. ñu xam ñooy kan ñu xam tamit fi ñu jógee loolu moo gën a important parce que c'est parce que fi euh, lii yëpp lu koy indi influence ñeneen ñi la c'est l'influence de de la rue et tout ça parce que moo leen ci yóbbee seen parents yi après dañuy ñoom la rek mais lu ma leen di conseiller daal mooy ñu xam seen bopp xam seen origine xam fi ñu jógee. Voilà, je me présente, c'est Touré Mamadou, voilà, euh, étudiant euh, à la FATEC, voilà. Alors Mamadou, quel est votre avis sur la légalisation du chanvre indien au Sénégal Bon, d'abord, la, la, question, sur la question, la légalisation euh, du chanvre indien, bon, pour moi, la question même, ça pose problème. Euh, déjà, le chanvre indien, depuis tout le temps, voilà, les gens contestent voilà, l'utilisation. Et aujourd'hui, si on me demande quand même... Euh, est-ce qu'on va légaliser ça au Sénégal Vraiment, personnellement, euh, ça pose problème. Voilà. Maintenant, on la réaction des autorités pour voir est-ce que c'est acceptable ou bien c'est même concevable même, de voir ça au Sénégal, un pays euh, qui se réclame, un pays musulman surtout. Voilà. Euh, vous, quelles sont les précautions doit-il euh, prendre pour, pour, pour éradiquer complètement cette situation de savre indien au Sénégal, plus particulièrement à Dakar Euh, je crois que euh, par rapport à ça, euh, pour, pour, pour se éradiquer ce fléau, voilà, euh, je crois qu'il faut, il faut, il faut, il faut, passer par euh, les, la sensibilisation, en commençant d'abord par la, jeunesse, voilà, parce que c'est la France la plus, la plus ciblée. Hein. on a constaté que même avant même, avant même la légalisation, avant même de penser à, à légaliser euh, cette situation, ce fléau au Sénégal, on a noté quand même de des années, des années passées, des années, des en année, des années en année, euh, des situations qui ont même causé par, euh, je dirais même par l'utilisation des centres indiens. C'est-à-dire les gens, euh, quand, une fois euh, ils, ont accès à ça, quand même, euh, ils ont même un certain comportement euh, qui ne rime pas avec quand même normal en réalité. Dans la mesure où vraiment, quand on utilise le chambre on est dans un autre niveau de réflexion, dans un niveau d'état d'esprit, dans un autre niveau de, mentalité. Je crois que cela pourrait pour moi quand même euh, aggraver la situation euh, de, de, de, de la situation d'insécurité et euh, comment dire et surtout même je euh, dirais même les violences voilà, dans notre espace voilà et surtout dans notre espace universitaire voilà. Ça reflète beaucoup de conséquences alors. Ça reflète beaucoup de conséquences en tout cas les les conséquences sont énormes pour moi voilà il faut quand même éradiquer mieux vaut voilà euh, quand même guérir comme on a mieux vaut prévenir que guérir autant pour moi voilà merci. waaw salaamaaleykum Sénégal nag affaire dafay am. parce que nit ñu baax ji dañ fee ne de am na lu bari loo xam ne mu ngi fi am du ñi fi dëkk ñoo ko fi def parce que li ci ëpp lépp étranger la étranger rek ñoo fi def lépp mais ñi fi dëkk xam nañ li fi ne parce que mag ñu baax ñu ñu teete kenn ku nekk am nga ci wàllu ci mag ñu baax ñu ba tax ne am na loo xam ne su ko nit defit parce que euh, da koy def ci sagoom wala da koy def ci euh, force am mais du pour ne doomu réew dëkk bi wala muy doomu réew mi parce que nit li fi dugg rek dafa bari parce que li ngay jëlee jëlee fii dug dugal Mauritanie moo gën a jafe li lay dugal fii dugal fii dugal Sénégal xam la baax li lay jëlee fii dugal la Mali moo gën a jafe li lay dugal jëlee Mali dugal Séné eh, dugal Sénégal. eh ben je suis pas d'accord pour qu'on puisse légaliser le chanvre indien au Sénégal parce que ça nous met ça nous expose nous les étrangers à des risques vraiment nous la jeunesse surtout. Et on ne sait pas ce qu'ils mettent à l'intérieur en fabriquant ces produits-là. Donc je suis vraiment pas d'accord pour ça. C'est néfaste pour la santé, c'est néfaste pour nous la jeunesse. comment dirais-je, ça la jeunesse à agir non pas par leur propre sens, mais par des sens autres que leur volonté. Donc voilà pourquoi je préfère pas que ce soit légalisé. Parce que de dangers. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est bien, parce que généralement, peut-être que pour ceux qui ont des maladies graves, ça permet d'atténuer la douleur et autres. Mais après, on ne que ça cause sur la santé. Voilà pourquoi je préfère pas qu'on le légalise. en fait, c'est tout quoi. En tant que jeune fille, en tant qu'Africaine, mais aussi en tant que Congolaise, hein, qui réside euh, présentement à Dakar pour les raisons de votre, vos études, alors euh, quelle appréciation euh, avez-vous sur la sortie de ces autorités qui ont, qui, qui ont l'intention de promulguer bien de, de donner Euh, par exemple, euh, leurs euh, propos pour qu'on puisse légaliser le chanvre indien Je dirais à ces autorités de penser d'abord à la population sénégalaise et aussi de penser d'abord à nous qui sommes les étrangers résidents dans ce pays. Nous ne savons pas à quoi nous sommes exposés, étant donné qu'ils vont vouloir légaliser ce produit. Ils doivent penser aux conséquences, notamment à la population, Parce qu'on ne sait pas, ceux qui fabriquent surtout des produits ici dans le marché, on ne sait pas si eux, ils peuvent ajouter dans les produits. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'un danger, tous nous sommes concernés là-dedans. Voilà pourquoi je préfère pas qu'ils puissent le faire. En tout cas, je leur invite à repenser à ce projet-là. Quel conseil donnez-vous à l'endroit de cette jeunesse qui sont euh, à la recherche de ce produit euh, tueur, de ce produit la santé de l'être humain Eh bien, le conseil que je peux donner, c'est juste de faire attention à ce qu'on nous donne, de, ne pas suivre les autres juste par suivi, parce qu'un tel a fait ci, ça lui a fait du bien, que c'est bien pour les études, que c'est forcément bien pour nous. De juste faire très attention à ces choses-là. Le Guinée retard, jeune yu bari ci la bokk quoi parce que la un boo ko boo koy consommé sax da ngay taayal pour nga génn sa kër sax dem doori waaru problème la parce que bi nga waroon dem joobi da ngay xàcc sa dara nee na xaaral ma tëdd ba ci kanam quoi na naba maa ngay dawee quoi donc vraiment je trouve pas ça bien. Mhm. te yow boo amoon benn xalaat boo xam ne ji da nga koy yeggee ñi nga xam ne ñooy autorité sénégalaises yi d' abord nekk ci bopp réew bi euh, yan yan matukaay la ñu war a jël ba loolu dañ fi wala mu bañ a duggati ci dëkk bi. franchement loolu moom dañ si war a taxaw bu baax quoi ku ñu gis rek mu koy consommer sax lu bon bon bon bon la tëdd même deux mois prison pour moi quoi parce que li nga xam ne xoolal baaxul si askan bi baaxul si. non dafi war a jógee daal franchement li nga xam ne baaxul quoi santul yàlla parce que ñu bari ñi nga xam ne ay crime yu bari sax loolu moo koy def vrai sénégalais vrai citoyen boo ko joxee xeer sax warul mënul xaañ nit ah tey xoolal ñi ngay dëgës dëkk bi rey nañ ñi jam nañ ñi sàcc nañ fii yooyu yëpp consommateurs yi rek la xam ne dañuy jël ay chanvre indien di tox di rey ay nit ñi di di jamaat di sàcc di jël alal jàmbur xam nga je trouve pas ça bien franchement c' est pas bon. Euh, ci loolu tey boo amoon conseil boo xam da nga koy jox jeunesse bi euh, ndaw ñi nga xam ne ñoo koy faral di jëfandikoo lan lay doon. vraiment c' est pas bon la majorité booy ñu koy jël gis nga fu muy mujjee lii amul midi 14 boo koy jël si mbedd bi rek ngay mujjee da ngay dof rek wala nga mujjee kaso. dof rek sax même kaso sax tànnee na parce que dof moo gën a yées parce que da ngay dof topp si mbedd yi li nga waroon dimbali say waajur wala li nga waroon war war nga takk jabar am kër am ay njaboot. mais doo ko mun a am parce que pourquoi da nga consommer ba yàqu mënatoo am loolu yëpp finalement doo xeeb dara sax loo gis rek da ngay jéem sàcc sax parce que doo xeeb dara parce que ni ngay consommer da ngay yàqu képp kuy jeune dooral waar amul si métier nit warul xeeb dara xam nga lan moo bon si nit sàcc di toxu yàmba di naani sàngara boo taxawee nga gëm sa bopp fii lu mu métti métti métti métti yàlla mu ngi lay xool del say génne lu bon bon bon di nga am tuuti li nga xam ne mun nga ko mën nga suturaal sa bopp daal en